jaajëfate salaamaaleykum sama gars yi maa ngi siyaar ñëpp di dégg ñëpp par vos performances vous avez ramené la joie de vivre et le bonheur dans notre pays aujourd'hui est un jour pour marquer l'histoire du football sénégalais mais particulièrement votre propre histoire Wolof Njaay nee na mbësub dee bu ñëwee ku dund doo ko tey bés te bés dañ koy mën te man woolu naa leen am naa ci yéen confiance bu leen fàtte mukk ke ni ay gaynde ngeen tey xalaa àccu la amul bàyyi dem ba jeex lu mu laaj def leen ko vous avez le soutien de tout un pays moi de près ou de loin je suis à cent pour cent avec allah jaajëfatee salaamaaleykum sama gars yi maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp par vos performances vous avez ramené la joie de vivre et le bonheur dans notre pays aujourd'hui est un pour marquer l'histoire du football sénégalais mais particulièrement votre propre histoire Olof Ndiaye nee na bu suuf dee bu ñëwee ku dund doo ko tey bés te bés dañ koy mën te man woolu naa leen am naa ci yéen confiance bu leen fàtte mukk ke ni ay gaynde ngeen tey xalaa àccu la amul bàyyi dem ba jeex lu mu laaj def leen ko vous avez le soutien de tout un pays moi de près ou de loin je suis à cent pour cent allah